salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi pauvre baaxul yal na leen yàlla may riche ba bu ngeen xawlee presse Sénégal bi dem jëli téer ba borom tissu yi a ah, ka defar siège ya ka defar lal ba ka defar armoire ba kii nii ma leen officiel nii moom moo ñëw ñëwu jabaru Sadio maani presse Sénégal en ligne bi dem nañ ba jëli ko jëli nañ tamit ki ko jaay tissu yi xam kër moo leen dese imam bi moo leen dese imam bi doon tudd doom ji géwél yi doon raxas ndab yi ak ñi doon way ak ñi nga xamante si nii ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo ñoo ñoom ñoo rancé saisi ah ak ak ak ak animateur bi doon animé yëf yi ak chauffeur bi doon dawal oto bi dem ak a ñëw non pauvre baaxul Sénégal dama leen a yërëm ñaata xew ñoo am Sénégal est-ce que mën mas nañoo jël borom téer bi ki defar dàll yi wala imam bi wala géwal bay non pauvre baaxul dama leen a yërëm dem nañ jëli ji ki ñaw ñaw yi jël nañ tamit ki ko jaay tus yi imam beeg ñoo ñoo leen dese kan moo des Sénégal yi bind leen ko ci commentaire yi